ci jëwriñ ji ko fi teewal jëmal ko fi di Serigne Mbacke yu fay ñu koy euh, ñaanal le représentant du khalife général des mourides def liggéey bu am solo ànd ko taalibe ak jëwriñ ñi bokkal liggéey bi yëpp moo xam Baye du mbay Samb ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom la bokkal kuréel gi di liggéey ci kilifteefu Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ñu koy ziar bu baax Serigne Mbacké yu fay nga gis bu baax ngir gën a respecter mesures yi ak recommandations yi nga xamante ni ñu euh, ngi émané wu ci euh, li le khalife général des mourides gis nañ bu baax li le respect strict des règles de ces de ces mesures barrières au niveau de cette grande mosquée Massalikul Jinaan julli gi gis nañ bu baax euh, sàppo yi niñ koy organiser gis nañ dugg bi nit ñi ni ñuy raxasoo gis nañ bu baax masques yi niñ koy takkee muy boo xam ne Mbacké yu fay jëwriñ ko Massalikul Jinaan kon lool dañ ko war rafetlu pour firndeel rek nit ñi nga xam ne gis nañ ne jabo euh, jumaa jooju di barabu jaamukaay yàlla boobee ubbi nañ ko ndax ku nekk xam ne ni euh, julli mënul ñàkk nit ki il faut que mu julli wàkkirlu suñu borom wante gis nañ bu baax a baax ne depuis bañ ko ubbee amul benn yoon bu ñu mas a bafoué les règles maanaam bu ñu wàcc yoon saa suñu nekk boo duggee masal ku ñaan gis nga ni ñuy gis nga ni ñuy ni ñuy ni ñuy takkee masque ni ñuy raxasoo am euh, de membres yu taxaw ci bunt bi di di di joxe sel yi kon loolu dafa am importance pour wane ne kon nit ñi nañuy gën a jaamu yàlla nañuy gën a fonk suñu borom julli gi kon Massalikul Jinaan mbàkk yu Fay respecté na lépp lu jëm ci nag mesure barrière ndax nag sëriñ bu eh, eh, sang bu tedd bi moo santaane ndigal te bëgguñ ñu wàcc ko ndax ndigal ku nekk xam ne murit ndigal jëfe la rek te loolu ñu ngi koy jëfe ci Massalikul Jinaan kon àjjuma bu jotee nit ñi nañu dem julli ji respecté mesure barrière yi am na solo ku ñëw indaal sa sijaada lal ko julli jaamu su yàlla suñu borom ndax feebar bi nag du tee ñu jaamu suñu yàlla de feebar bi mënuñoo tere te ñu ci kër yi duñ jaamu yàlla ndax yàlla comme ci ñamul la ñuy ca lañ ci ca la ñuy dellu